jàppal doomu aadama yi ñoom la ñuy dalal tey ñi ngi dalal kilifa gu baax ñu koy wax Serigne Prince yàgga def résultat Nigeria Ghana ci région yi ak ci Matam fu ne dëkk dëkk Afrique yëpp mu jaar fi te nag mu ñëw fii Sénégal naqare jot loolu ñu fexe ba indi ko pour mu génnee xam-xam bi ni ci moom fii ci waa Allo Dakar mën koo jariñoo kon sëñ Prince ñu ngi lay jox kàddu gi bisimilah. waa ñu na waa senegal yëpp ñu na. Euh, ku nekk an lu mu sama ñaari waajoo Balla Gaye numéro 2 mbëri Guédiawaye yëpp Lirou Diane bu am victoire kerew an euh, Sa Thiès ku nekk an lu mu sant Ousmane Sagna Ismaila Kamara and euh, sama sëriñ euh, sëriñ Abou Karim Mbacke ñu na yëpp Abou Konatré and nab bu jaay oto asalaamaaleykum mbokku jullit ci mbokku talibé mbokku senegal Serigne Prince tey bu ñëwee fi fekk la fi. ñu wax ne yàgg ngaa def ay résultats maanaam réew Afrique yi yan réew Afrique nga jaar. waaw man jaar jaara na fu nekk jaara na Mali Gambie jaara na fu nekk en tout cas pour ay bagages parce que dem na fu nekk man Nigérian la bu ñëw fii Sénégal bu faj ku nekk n'importe fait balaa faj fii nekk ay xaritu mbër yi nekk ay sëriñu mbër yi and politiciens yi. loolu moo tax n'importe feebar bu ñëw fii dama ko faju ku lekk poison koo xamante bu nekk bitim réew parce que dama gën a am client yi bu nekk bitim réew and eh, affaire yi waa KIT and police and tout loolu moo gën a nekk sama liggéey parce que liggéey joni joni laa def yow sa liggéey joni joni la def léegi gis léegi sama liggéey sa def léegi gis léegi liggéey boo xamante su mu wan fii yow mu wan yow benn léegi di nga bëgg daaw góor gu tële ci wàllu sëy koo xam ne kii am na soxna am na jabar waaye toujours buy sëy du mën a sëy day tële wa ilaa sàkkaram dafay gàtt lan mooy indi loolu ak yow nan nga koy fajee waa loolu yëpp lu ko indi mooy suuga andi citron parce que citron dafa ray système góol mhm. am na beaucoup góor yi tey boo xamante seen bagage dégré wu mhm. nekk comme banaana mhm. boo xamante asalaamaaleykum maaleykum salaam. Mm-hmm. parce que loolu yëpp moo yàkk sëy fii senegal mm-hmm. jigéen dafa bëgg jëkkëram satisfier moom. Mm-hmm. léegi ma wax sa waa senegal pour wàññee ko sugar en citron en ba loolu yëpp dafa ray système góor. mais loolu dama ko faju fii am na garab may defar ci loolu des fois ndokk siti dafa bokk ci. pour ray système góor. mais ñoom ñëpp boo xamante damaa defar ñoom gaalaaji ci loolu. mu nga jàpp sa jabara une heure yow du daan. voilà loolu mo ci nek ci wa côté sey ànd am nga galaj go goo si koo jox une du daanu dama ne mu togg ko bu fini may ko mom naan an bu mom dina sangu yep wañe ko ci moom léegi su japp jabar jabaram heure boobu moom dinaa xam bamba morite la tuba mom waw tay lan nga gis président Ousmane Sonko ak lan nga gis ci président Macky Sall ñaari ñaar ñoo lo gis ñom wa bu ñoo ci eh, Macky Sall eh, nuyu na ko bu baax parce que moom euh, président bu baax la bëgg lu baax ci réew bi defar na lu baax aussi euh, may ñaan yàlla pour may ko gudd fan en wër parce que ci politiciens yi laa am sama liggéey and euh, boo ci Macky Sall laa mën na wax parce que man xam na troisième mandat du am deuxième rek foofu moom dinaa ñëw ci dëkk bi troisième mandat kon nit ñi nañ noppalu du am deuxième mandat yi ci la Macky di am waa euh, victoire Macky Sall fu moom eggee ci spécificité kon loolu leer na Serigne Prince bu ñu jàllee ci leneen muy wàllu cat Lamine koo xam ne kii cat dafa ne ci moom catu bët wala catu Lamine lu mu yaakaar mu tas lu mu dugg mu yàqu bu bëggee dem Nigéria wala mu bëggee dem Ghana saa bu amee visa mu yàqu bu bëggee dem France mu yàqu ku ko dikk xaalis du ko jox cat kum ne ci yow yow ci ñaata fan nga koy dindi ci ñaata fan. waa xam nga bu ñoo ci côté cat. am na nit boo xamante su ñoom xooro yow sax lu baax bu waroon na ñoo ci yow ci semaine boobu yëpp yàq am na càtt lami boo xamante su ñoom topp la yow dootu am ndam léegi dama am ay bagage pro càtt moo nekk fii dama am ay bayre xam nga bayre dafa àndaale càtt si yaay may nit bayre fa yow bu am protesion loolu moo tax man am ay jaaro fétiche yi bu nekk fii bu nekk ay fii nii waaw yi xaalis la wala non non bii jaaro yi pour protection caat en lamine. d'accord léegi en lamine voilà. Mhm. bu ñëw ci waa côté euh, mystique bu mag waa côté xaalis alar. bu dee bu bii. voilà bii c'est pour alar en tout. Euh, pour alal la. waaw waaw. andi yi aussi an politiciens yi ñoom moom moom bii. xam nga différence. waaw voilà c'est léegi dama am bagage pour caat en lamine. Mhm. ku man defar ñaan. waaw joni joni la.

waa bi mbaxana roi ku bëggu nekk roi des arènes. ma ku bëggu nekk yëpp ci àdduna bi yëpp dafa am. waaw euh, ku bëgg nekk roi des arènes. roi des arènes waa côté lambo waa côté xaalis en tout parce que lu waroon na nekk ci spirit ci vie il faut moom nekk ci spirit bu pare. comprend nga bi sama mbaxan liggéey la lu ci nekk ku man jëre ko defar ko liggéey moom dina am jàmm al salaam. macha allah looy wax ci wàllu kayit moodu moodu yi nekk bitim réew bëgg am kayit ñibbisi wala ñu bëgg am kayit foofu pour liggéey mu tëleen lang lan nga ci man waa xam nga ñoom bu nekk bitim réew boo xamante ñoom dugg ci côté kayit yi ñoom amu bala nga defara nit liggéey kayit yi fa yow lijjanti yoonu bi bu pare mhm. ku ñëw fii pour kayit yi mu jër karaw tubaab defar ko ñaan kawaru tubaab karaw tubaab ànd mhm. bayri tubaab su moom dem demandé moom dinaa am parce que fu moom nekk génn na ci dëkk bi léegi mii ci bitim réew bitim réew ku yow bëggu defaru ñoom ñaan il faut yow jël karo tubaab defaru ñoom c'est pas ay karo naar yi de original tubaab bi defaru ñoom ñaan sango an lu ñoom danaa tàkk ci ndigg bi parce que am na ñoom boo xamante seen problème mun na nekk caat ba jugoo fii Sénégal moo jàpp ñoom moo ñoom mënu avancer léegi bala nga da ngaa génn Sénégal pour gis San pour am xaalis pour San Diaboté am na affaire boo xamante fi am protection pour chat an lamin am bayre tubaab and karaw tubaab lu yow dugg la ko yow dina ko am affaire kayit yi sax boobu jaroo sa soon boobu moo gënoon nekk sama liggéey dégg dëgg ñoom bu nekk Europe ñoom mën na wax parce que tout temps maa ngi am ay client pro ñoom bu nekk Europe an bu am problème de police adị m kọmanda ọkụ gbawa ọkụ gbawara mmiri ya n'ọbịa mgbe otu ọjị n'ọlụ ụtụtụ n'ọbịa mgbe otu ọjị n'ọlụ ikete asị m ọkụ gbawara mmiri ya lahenara m dị okwu okwu ya n'ọba ọkụ lahena m dị okwu okwu ya n'ọba ọkụ asị m ọkụ gbawara mmiri ya asị m agbara ngene oke alụsi o asị m agbara ngene oke alụsi o mere gịnị bụ oge ndụmọdụ ibo mmụọ koo xam ne kii nag maanaam yàlla dafa dogal rab dafa daf ko jàpp jinne rab day daan ay rab wala day tëdd guddi di gënt di sëy wala mu jékki-jékki di tiit ci ñelaw guddi wala muy yuuxu wala muy say kooku euh, ci ñaata fan nga koy dindi. waaw loolu moo tax parce que bu xooru lii lii yëpp ay euh, bagage jinne la. fii yëpp ay bagage jinne la. comme lu lu lu nekkoon ci euh, large formation xam nga ku nekk bu di. yeew la jaan la en tout mais yeero man dem foofu damaa xam jinne la jinne la kon li nekkoon la l'espérance ñu naan yeew la eh, jinne la loolu jinne moo ci nekk an yàgg na foofu affaire ay jinne dama jëre trois jours faju sama liggéey trois jours sa liggéey daal yàgg-yàgg ñetti fan ñetti fan dina ko faj ku daanu crise fii léegi nii dinaa jër beneen koko kese faju ko moom koko bi ñuy lekk ci nga koy koy defee waaw koko boo xamante bu am liggéey ou bien mu jër bii nii doo ko ci yaram bi moom dinaa jiw macha allah bu loolu jàllee mu mel ne kon suñu dernière question muy koo xam ne kii dafa bëgg am bayre footballkat la wala mbër la wala dafa nekk nit koo xam ne kii maanaam dafa yëngul ci wàllu commerce bëgg turam siiw maanaam ñaata fan ci nga koy taal ak loo koy jox jaaro la wala lu muy sangoo wala lu muy suuroo wala lu muy takk. waa comme man wakiyu am na jaaro yi boo xamante waaw bu nekk fii comme man expliqué la. nga am ñaari façon jaaro bi. waaw am ñaari façon jaaro bi. dañ nga am euh, am na sango yi bu nekk fii bii Bayre pour protection and euh, chat and lamine la waaw ba sungoofu bi ànd am na gaalaaji aussi boo xamante kooku dina tàkk ci ndiggi bu nekk nii waaw comprendre nga euh, voilà dinaa la doon nga takk ci sa ndiggi sango su yow amee place mu doon yow bu yow dinaa takk ci place bi jeex na takk di nga liggéey ba soxla macha allah sëñ Prince mu mel ni kon waxtu wi jeex na takk lan ngay tàggatoo waa maa ngi tàggu waa Sénégal eh, bu di moom liggéey bu ñëw fii dina ko doo ko mu daan ah, mais n'importe feebar ou bien problème bu ñëw fii loolu moo nekk sama métier pour dimbali doomu aadama faju bagage yi n'importe feebar ou bien n'importe problème nit am protéger mariage en tout bu ñëw fii ri jeex na taal léegi maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp sama sëriñ sëriñ Abou Karim Mbacké nuyu Balla Gaye numéro 2 Sa Thiès Lirou eh, Lada Gueye numéro 2 ku nekk am li mu santé waa Géejawaay yëpp asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku talibé yi ak mbokku Sénégal jërëjëf. kon mu mel ne numéro Serigne Prince ku ko bëgg a ku ko soxla na nga ko woo ci 77 447 58 64 77 447 58 64 wala nga woo ko ci numéro WhatsApp bi mi muy 77 867 22 95 77. 867 22 95 numéro bi mooy jàll noonu ci kanam écran bi waaye mbokk yi mboolem koo xam ne kii danga ngaa bëgg am loo jàllale wala nga bëgg a sponsoriser émission bii di xam xam le wala nga bëgg maanaam ñu dalal la ci émission bi man nga daal di woote ci 78 592 64 54 78 592 64 54 numéro bi mi ngi jàll noonu ci kanam écran bi seen émission xam le ngeen ci ànd ak taal Diop fii ci seen seen bu mag bii di Allô Dakar TV international Allo Dakar TV international jërë ngeen jëf.